waaw daje bi li ko waral lu lu lu lu simple la euh, moom mooy que euh, Petite Côte bi fii dafa am ay acteur culturel yu fi nekk yu bari ñi ay waykat lañu ñi ay instrumentistes lañu. Euh, ñi ay danseur lañu ci ay bale lañu nek hein, ah, ñi ay magicien lañu euh, manam dal boy wax boy wax ci ci ci ci ci culture ci animation ñi ay DJ lañu ñi ñi lu nek lañu ça ça dire tey jii li ëmb ñooñu ñëpp man mi tay ji je veux dire je suis un événementiel damay organiser di di wo groupe yëpp que muy ñoom ñii fi tok muy Saga muy bastay muy malik muy muy muy muy muy Pape Diouf muy euh, Salam Diallo muy Omar pen muy ñom ñep dañuy ñew fi di fi di fi di di di fi produire donc tay ji ñun loolu moo ñu indi fi c'est-à-dire on veut vraiment euh wax ak wax ak le ministère de tutelle ministère de la culture mu gëstu. Nous nga que les acteurs culturels qui sont sur la petite côte dégg avons le ministère de la culture nous na aux artistes en général du Sénégal c'est bien beau on salue le geste quoi fait l'eau, parce que moment est dur lañ traversé mais les acteurs qui sont ici sur la petite côte ils sont bopp amul kenn au niveau de la Petite Côte il faut sentir sa bop et que Petite Côte bi le tourisme quand on parle du tourisme le tourisme fait des rentrées euh, des rentrées phénoménales dans l'économie sénégalaise donc tey le te tourisme bob li ko meuna a doxal lan la c'est de l'animation tobab bi jugewul wala sénégalais bi nga def euh, tourisme local bi jugewul Dakar wala ki jugé jugé France wala jugé Espagne pour ñeu dugg ci hôtel bi tok fofu lek nan ki ñibi wat dem yoonam lolu loolu indiwu ko fi c'est pour qu'il y ait de l'animation autour bu égayer ce am et animation bobu ñiko yoré mom moy les acteurs culturels yi nek fi les les les les les les les les les éléments de de ballet hein euh, ñi nga xam ne ñoom ñoom les chanteurs de variété espagnol bi ñëw nga wayal ko chinois bi ñëw nga wayal ko allemand bi ñëw nga wayal ko arabe bi ñëw nga wayal ko ainsi de suite ainsi de suite donc ñooñu tey jii ñoom ñooy les acteurs culturels yi nga xam ne dañu nekk fii di égayer le séjour de euh, de ces touristes là et tey jii ñooñu depuis cinq mois ñooñu liggéeyuñu ñu ngi toog ñoom la ñu njëkk a arrêté te ba léegi kenn bàyyeegu leen comme ni ko Papis ba waxee léegi ba léegi nii kenn bàyyeegu leen on leur permet pas encore d'exercer leur métier qui leur permet de de de d'être digne de ne pas tendre la main par-ci ou par-là bu ñu bëggee sax aide boobu nañ ko téye mais nañu dimbali les acteurs culturels là ñu commencer seen liggéey ñu mën a liggéey ku bàyyi marché muy liggéey bàyyi transport en commun muy liggéey bàyyi yeneen secteur ak yeneen secteur ñuy liggéey restaurant boo fii ñëw da ngay solu ba jekk ah tuuroo parfum set door a restaurant je suis désolé doo fa ñëw ak ñaq doo fa ñew ak tilim da ngay set déjà pour ñew bo ñewé di nga fekk visuel ci entrée bi ñu jox la alcool gel hein ah, xol na yore nga masque pour au cas où s'il y a des contrôles et tout parce que puis, chaque fois euh, les agents de la sécurité dañuy ñëw di contrôler ce liggéey la dañuy Ils contrôler xool nag nit ñi yor masque wala te dañuy ont chaque fois nit ñi yor masque donc ñun tey dit il est beaucoup plus facile à mon avis d'organiser un restaurant ou un hôtel ou un bar où tu reçois 50 personnes pas plus il est beaucoup plus facile de respecter les mesures de distanciation sociale hein, respecter les mesures d'hygiène qu'ailleurs donc le président a dit il faut vivre avec les virus permettons-nous aussi de gagner notre vie avec les virus il y a certains musiciens qui sont là ils sont menacés d'expulsion parce que c'est des locataires c'est des gens ni Dakar ni Thiès ni hein, pour gagner gagner vie luñu luñu luñu ñak dañ koy jël yobul ko seen ay njaboot tabaski baangi ñew ni nii ba léegi nii ñoom mënuñu liggéey donc c'est, urgent c'est vraiment urgent à ce que l'État du Sénégal ja euh, len ñun ci message bobu lañu am pour euh, pour joxé dama ci jaarale aussi pour remercier le ministre le ministre euh, le ministère du du tourisme parce que dégg nañu action yi ñuy def yépp vraiment accompagner les bars et les restaurants Nous nga qu'ils sont venus ñoo pour ñu appeler les employés Mais.. Les employés c'est-à-dire les acteurs culturels nous dañu entre deux à trois ministères aujourd'hui c'est-à-dire Le ministère du tourisme parce que nous sommes des acteurs culturels nous sommes des as animation bi euh, dañu ministère de la culture faut moins le ministère de tutelle mais aujourd'hui ki yoré ndogal bi ministère de l'intérieur le préfet est au courant de la réunion qui se tient là aujourd'hui parce que j'ai eu moi-même à lui en parler Nous sommes le de passage Je euh, nañu fait man individuellement en tant que organisateur de spectacle dem naa seeti ko on attend l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour autoriser le autoriser spectacle donc c'est le préfet pour le moment et le préfet wax le commissaire de Sali aussi dit di parce que mon mot représenter la loi en quelque sorte c'est le nombre c'est incalculable peux pas calculer parce que Taïdi, je peux dire que c'est des chefs de groupe qui sont là il a un groupe de presque 15 personnes derrière. Euh, Big Man, pareil. Euh, saga, euh, du produit Rufi, presque 2 à 3 jours de la semaine. Malik, pareil. Lampe pareil. Hein? C'est des gens, qui ont il y a au moins 15 personnes qui sont derrière toi. C'est des chefs de groupe qui ont fait l'État. Amna ñu togué na l'état la sek jiremi hein euh nékkon ci Alune Mbaye ñeu retranché wu à Sali euh, yore Modou Thioune day jeux fi, day jeux ci man tous les jours donc tey élément boo fa gis Il y a au moins 15 personnes derrière derrière des des instrumentistes des danseurs des des gens qui ont même boo organiser spectacle bi ñoom dañuy ñëw bénévolement la ñuy ñëw di fecc di kii di def di yëngatu di animer pour mën gagner seen vie pour yobul sen sen njaboot. tous ces gens là tey jii boo ko dee compter mën naa wax di compter personnes ou plus qui sont là à Sali et qui, et, qui, et travaillent autour de l'animation de l'animation de la station. L'Unifi encore une fois, ce n'est pas de dénoncer. Ce n'est pas de dénoncer. Euh, c'est de parler au cas général. De dire que nous avons le droit de vivre avec le virus, comme le dit, la comme dit, comme l'a dit le président, de vivre avec les virus euh, de travailler tout en sachant et considérant que le virus est là, il existe.